الله أركانا يسر دعائي للتوبة واحمني وقني أذى الورى والتتب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرض ما شركه بنا أجب وسلي برسليم على سندي محمد وتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xanaa kon ñu sof nuyoo bi ci seexoon xunaa ni mu ko sofe rek noonu ni mu ko waxee xam naa tam xidam bi moom am na solo lool ndax danañu dimbale danañu dimbale dana ci ndax leeral na kon pas-pasu jaahiliya ak lépp jaahiliya ne mooy la nag lépp kon leer na te loolu mooy tax ba lii ñëw mën a leer ndax jaahili islaam la ñu waxoon islaam ak réeruk ñetti téeméeri wala ñetti junni yi ci maanaam ci taarixub taarixub nasaraan yi ak nag junni ak ñeenti téeméer ak lu ñeent ñeent fukk fum naa ak fanweer ak juróom-ñett yi nga xamante ne ne kon mooy kon junni ak juróomi téeméeru wala fukk fukki seekal yi ak juróom ci ci gàddaay gi xam naa waxtaan wi ñu ko suñu jox naa junjee ci xar geeg nangam ji waaye incha allah taala sëñ Fallou Ndiaye dana ñëw xanaa kon moom it mi ngi préparé noo xamante ne commentaire ci ci yëf yi balaa loolu kon nag sëñ Mouhamad Jigal mi nga xamante ne moom la ñuy tudde bis bi bokkoon ci ca mag ña daanañ dégg ab taarixam xam na xam naa ñoom it nag sëñ bi bala balaa téere bi génn nu ñu gën a mën a jaatale ñoom it seen seen seen waraxa bi dana baax lool ndax ndax ñëpp soxla nañ ko koo xam kon seekal bi bi ñu nekk muy seekal fukkeel bi ak juróom ci gaddaay gi seekal la boo xamante ne mel na ne sallallahu alayhi wa sallama lam fi fi dindi woon lijjati woon ci ay ëkk dafa jebbiwaat sëñ Tuubaa sax moom it dikkoon na ci masalik doon doon doon jéem a dijji ëkk ya waaye ëkk ya yëpp daa mel ne jebbiwaat na loola moom kon lu ama am solo la loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yi nga xam ne ñoom ñoo jiite diine ji ngànk ko yaakaar naa ci la may tàmbalee mooy wëhën doye di nga xam ne yonent bi salaatu wasalaam waxoon nañu ko ne ne ne ngeen ko bàyyi xel ndax alxuraan nañu waxoon ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ay waaye rek waaye bu leen doyee di bu leen jàq yéenay kawe gaa yi waaye nag su su ngeen doonee ay mu'minin dëgg ay way gëm way gëm nag suñu soxnaa leeral na ko way gëm moom yaakaar naa bëritut gëm yàlla bëritut moom gëm adduna kay bari waxen yonent bi bi alayhi salaatu wasalaam ne mooy bëgg dund ragal dee loolu moom loolu moom ndax nee na kat su su su doyee di goo goo amee nee na nee na day ma ngeen a dox ba mujj xeet yëpp yi leen jiitu tuwoon diine yi xam ne jiitu tuwoon lañ leen këpp ci seen kaw ni nga xamante ne ni la ay sang lañ wala ay mbëgg sukkar di këppoo ci kaw ndab loo xamante ne dafa defoon aw ñam aw ñam loola kon lu lu am solo la yaakaar naa ku déglu ci xabaar yi da nga da nga da nga dégg Syrie seen coow lu métti li xeex bu métti ba Yaman ku ku ne xam ne Syrie foofu lu mat a leeral la Bacharul Asad ab shérif la shérif na naar yi bu ñu ko dee wax dañu naan ab alawi la lu lu tax alawi koo xam ne sëtub yonent bi daañu si sëtu salaam ga waaye xam nañ ne bu ñu tuddee ne sëtub yonent bi la xooli jullit ñëpp danañ jóg ñooy dee sëtub aliyu la loolu sew sew la bu am solo boo xamante ne naar yi ñu ngi koy wékkale ci nit ñi ci ci média bi di wane ne kat maanaam sax docteur ci xarada bi sax li muy jàmbaare jàmbaare daanu na fa loolu ab jël bu metti àgg na ci baan Bachar Assad sax day moom nekkul ab jullit gëmut yàlla te lépp kat politique rek la loolu kon it nun ñi nga xamante ne nun suñu yoon nekkul ci ci loola nun duñu naar fëruñu ñoo kenn waaye kenn faral mooy gente bi ci jaaseetu wasalaam loolu leer gi ceeman googee nga xamante ne surafaaye ñoo fa nekk gis nga wahabi yi nañ leen dexeexe xeexe leen ci turu diine te kat politique dong la ñoom ay surafaa lañ yu mag yoo xamante ne ña nga fa ña ngay mab seen barab yàgg lépp loola kon moom bëgg adduna gi dund bëgg a dund bëgg a dund gi nag moom ya- yaatu na lool sunu borom xe- xam-xam yi réew mi sax bu ñu toll ñoom it bëgg a dund jóone na leen ci ñoom it mënuñoo wax dëgg. nga xamante ne kon moom bë- bë- bëgg a bëgg a dund moom fépp la ne maanaam léegi ak ragal dee ndax dund moom ku ku ko bëgg rek da ngaa ragal dee te ku gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg nga xamante ne jàpp nga ne yàlla dajeeg moom moo gën ci yow kon day kon yow da da da nga ko jihaaral jihaar ji nag mooy da nga ko ko woteel ci nii ujaahi bi bi loolu mi ci ci ci bi tuqaa suñ tubaab nee na moom man de maa ngi jihaare ci xam-xam ak ragal yàlla kon léegi nun borom xam-xam yi ñoom it kon bu bu ñu amoon foofu day baax lool nga xamante ne bu ñu yoru dara it muñ nga xamante ne suñu borom la la fa suñu borom moo gën li fi loxoy nit ñi loola ko ko- kon doyee di googu nga xamante ne ci yonent bi bi salatu wasalaam wax na ko indi na ci ñun ay jikko yu bon a bon yu baree bari bokk na ci lu mu indi ci ci ci ñun pas-pas bu yàqu pas-pasu maanaam léegi xeet wi mbooloo mi ëpp seen pas-pas moom yàqu na maanaam maanaam kenn xamatul dëgg dëgg la yonent bi ba ci ci ci salatu wasalaam ci waxoon wéete yàlla nag daa for lool yàlla mag ñi dañoo wax ne yàlla akub sëriñ ak jëkkër dañoo fiir yàlla ab sëriñ ak jëkkër da- dañoo fiir maanaam sa jëkkër moom maanaam lu mu la bëgg bëgg bu génnoon ci ci ca mbedd ba dégg la nga nga nga- nga naan ah góor góor a njaay sangam de moom moo ma gënal sama jëkkër bi incha allah seen diggante yàqul waaw rawatina nag yàlla mi nga xam ne moom dalaa bind yo- mën na la lépp kenn fi ko ko ci yow soo ne ko ak ak keneen rek noppi na ci ci- ci yow da- daa waxoon ne moom mooy agna suraka nee na loo ma booleel ma bàyyi ji ñi ak moom loola kon moom pas-pas la boo xam ne moom lu mat di daas la sellal ko ndax kat képp koo xam ne da ngaa dugg ci ci ba ci bàmmeel tu tuubaale woo pas-pas bu bu bu dëggu ba da nga yàll ko loolu moom kon lu am solo la pa- pas-pas yi yàqu na ñu ñu ñu ñu ñu baree bari dëgg yàlla ba ba ci suñu suñu murit gi nga xam ne kenn kenn si si si tubaab lépp lu yàqu pas-pas rek la ndax léegi bokkutoon ci la mag ñi nga xamoon mag ñi bëgg dem rek lañ fi jógee xamuñu woon ay kenn si tubaab kennal kenn ñoom kennal ki ñu xamoon mooy kennal yàlla. waaw lu am solo kenn kennal yàlla rek la ñu wax waaye duñu wax ñoom kennal Sëñ Tuubaa ke kennal ki keneen loolu lu yàq pas-pas la waaye fi nga xam ne moo gën a yaatu moo gën a yaatu mooy asalafiyel mulhida li ñu tuddee salafis yi yi nga xam ne wahabi yi muy muy muy wahabit yi ma ma ma tudd leen ñoom asalafiyel mulhida am na lu am na lu lu xew fan yii lu am solo lu am solo loo xam ne yaakaar naa ñiy topp internet bi gis nañ ko koo xam ne gisoo ko it man man nga ko xool xaj mu bayt nabi yi fi Makka soo ko bindee ci internet bi ñu andil la kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam wahabi yi dañ koo màbb màbb ko de nga xam ne kër ga dañ ko maanaam léegi dañoo ko suba gis ko am na mihrab baag lépp nga fa ak ni Xadiija baag ni Yonent bi salaam ne fa ak ak ak jàkkam ñu màbb ko ba noppi nag def fa ay toilettes publiques loolu suñ bëri na de bañ la laajee njiit la nga xam ne moo ko def danekat dañoo bañ rek cirque di cirque gars yi ma ma dem daal di ko siyaare waaw ba bañ ko mabbee dañ ko defoon boog jàkka dañ ko defoon boog maanaam ab bibliothèque wala école waaye def ko ab toilette publique toilette yi ab douche lañ def ca kaw mihrab bu yonent bi waa ji keroog bi ñu koy wax soo soo seetaanee YouTube bi soo ko dee seetaan ci YouTube waa ji bi bi ñu ko laajee ne ko waaw ah kon kat moom li yéen kon nu nu ngeen def kii ba kër ga dañ tekk daal di julli ci conte bi mel ne tiit na daal ne kat ah dañ koo màbb def nañ fa ab dus ndax léegi nee na sultaat diine yi ñoo ko wax ñoo wax ne daal nañ ko def ndax bala bala koo nit ñee xanaa dem di ko siyaare loolu loolu kon ñoom boo seetee lu réeréy la ndax ku dem ci taarix rek fekk fa al umawiyin yi ni ñu bëggoon a fare ci yonent bi bi alayhi salaatu wasalaam Karbala ja leer na ni ñu bëggoon a faate maanaam étram bi yëpp te yàlla dugalu ko loolu kon leer na kon wahabi yooyu kon ba tey kon ñoom it ña ña ngay xeex ñoom kon ña ngay xeex loolu nag xam naa moom jullit ñi war nañ ko bàyyi yi xel lool wahabi yi ñu dansé lañ ndax ñoom kat dañuy màbb civilisation waaw ñoom moom ñoom moom civilisation la lañu mab ñoo ñoom xamuñu ta tataar yi ñëwoon baxdaat benn lañ maanaam xamuñu baax ak bon yaakaar naa ku seetaan seen jëf yi ci ci télé bi da nga xam ne ñoom maanaam mënuñoo nekk ay jullit yoo xam ne ne lent bi ay salaatu wasalaam indi woon moom la am na sax salafis yi yeneen yoo xamante ne jàmbaar lañ ñoom mu ta tarifa lañ sax de waaye nag di jàmbaar lañ mooy ixwaan yi jàmbaar lañ ñoo ñoom it li tax ma tudde lu tax ma andi leen foofu mooy ne ñoom it kat jàpp ne sama pas-pas doo nga baax pas-pas ku dul man baaxut loolu kon ak jaahili lii la maanaam moom moom si jox naa lii li mu andi woon ci tomb yooyu yooyu mu andi woon ci hadisu maanaam léegi jibril ba noonu ko koo xam nga ne koo xam ne yaa ngi doxee noonu kooku ab jullit nga imaamul ma xasaar yi ci la mu waxoon ci ci mooy mooy tuddi ne diw yéefar la ndax boo boo ko waxee mooy daga daganal deretam daganal nga alalam ci lax ak sëñ Tuubaa la waxoon falaa falaa tu'aduu man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaaha illallah ku ku wax laa ilaaha illallah ku ne rek nu man di mel kooku moom ala shaqawta xalbaja ca ñu dem saxaabi ba ba nu rey waaja nga xam ne xaylu dund wi di rey waaja ci waaja ne laa ilaaha illa ashhadu an laa ilaaha illa ashhadu anna Muhammadan rasulullah mu rey ko ba ba mu dikkee yent bi ne ko waaw da ngaa da ngaa xaroon xol bu ba xam kon kon bokk na ci maanaam léegi jaahi léegi ñàkk xam gi mooy loolu waaye nag ñu ñu xamit ne kat jaahi léegi bokk na ci li ko andi mooy tari tari tari gi nag luñ murid gi moom it bari na fi lool tari day seet jànkatu tubaab boo xam ne xamut benn baatu arab lu muy firi ba noppi bëgg a interpréter Sëñ Tuubaa mu ta nekk waaw damay wax ne jànkatu tubaab moom tubaab xam-xam la sëñ soxna junj na ko xam-xam la moom waaye ku ko jàng képp day moom dañ lay dañ lay jàngal Sëñ Tuubaa waaye yow mënatoo koy jàngale ndax yow la ngay la ngay wax lépp wax maanaam xelum keneen la kala koy firil am xelam la la la jox soo ko di firiwaat jox joxewaat sa sam xel bu ñu joxee tuuti maanaam bàyyi texte ba nële di wax leneen kon moom bokk na ci kon léegi li tax jaayi léegi gii noot mooy tari rek tari tari rek waaw tari moom danaa koy bàyyi lu xel lool tari moom amul njëriñ moom amul njëriñ ah xanaa la muy amee njëriñ de mooy ka lay wax doon ku dëggu ku dëggu ku sell ku sell nag koo xam ne moom la la may wax sa bay dama ko ko ko laajoon naa ko laaj mag ñi mu ne ma déet mu ne ma ahlu sikir yi jeex nañ ndax ahlu sikir mooy koo xam ne day wax lam xam bu jeexee mu mu noppi te léegi nit ñi moom dañuy wax diw yi rek kon bokk na ca jikko yu yàqu yi jikko yi moom yàqu na lool yaakaar naa xaw ma ngeen ko waati sëñ Modou Lo seen kii bi nu tóoti Safinatul Amaan xam naa ne war nañoo ñoo xool man mi dugg man ci kaar yi kaar yi man ci dugg man man man naa xam man lii ne ci dëkk bi kaar yi kaar yi seetlu naa ci ay nit giir sangam giir ngeen wax giir sangam boo xam ne ñoom dañoo baaxoo duñ sol col gu baax duñu yiwee giir goo xam ne du ma tudd tur wa waaye ñoom dañoo aada woo duñ sol col gu baax duñ duñ yiwee kaar yi ñoo ci fees dell ah man de sam soo fa jógee di di ñëw fii man suba gi dañ ci fees dell xuma nag lu waral man dama sax man ah ci na sax mbaa du ñoom dañ leen fee indi jóo leen fi ndax day maanaam day buñ fa nekkee tuuti tuuti day ak seen melokaan woowa dana yàq lu bare bare bare col gu bon ak bon lañu sol ba noppi di wax lu bon ci kaar bi loolu loolu sëñ Modou Lo ñoom kon ñoom ci war nañ ci caa liggéey gis am na col gu xew jamono ji yaakaar naa ñetti weer yi xanaa la wala juróom yi mooy mbubb yi nga xam ne tiise bi nga xam ne dafa nooy nepp di ñappaaral ci kaw nit ki jigéen ñi di ko sol léegi ab robb la ñu sol ab robb day mel ne yiw na te te bu solee bu solee robb bi jëm jëpp moom lay moom moom lay melal loolu loolu moom yaakaar naa maanaam sëñ sëñ Modou Lo ñoom ñoom war nañ caa jóg ndax lu ñaaw la moom loolu yaakaar naa maanaam su su su ab tubaab ñëwoon fii ba ba ba gis ko dan na waar lool. gis naa it lenn ci ci ju jumaa ji jumaa ji gis naa fi loo xam ne moom it lu ñàkk lu wóor di la loo xam ne waa jumaa ji ñoom moom wax dëgg xel man war nañ ko bàyyi xel sow jumaa ji am na fa nit koo xam ne gidd yi andi tubaab yi. ñu ngi sita ci jumaa ji maanaam dañ di dugal ci ab kër sàngam dañuy sol pantalon sol lu gàtt ba dugg ca ba ci wetu jumaa ji kooko woo leen dugal ci ab kër jox leen lu ñu woddoo am na de koo xam ne moom loolu lay liggéeyee kooku nag mat naa gëstu ba xam liggéeyam boobu ci ci lan la fa ndew lan waaw maanaam léegi tubaab bi am droit ñëw ba ci jumaa jumaa ji sol lu bon waa ji jël ko dugal ci ndax man maa fekke dafa dama taxaw seen ay tubaab yu ñëw sol kii ma ma ma ci ci ma arrêté giddi bi ne ko kii li mu sol nag waa ji doog na ma daal ne ma kat dañoo ko dañoo jaawale waaye fii la da daal dugal ca dugal ci ci ci biir kër ga ma ma taxaw ñu ñu génn wodd loolu kon moom mu ba mu wax dama xet ma ñoom it war nañ caa kii ndax loolu ak jaahil yi la jombul ñàkk nga tax ñàkk xam naa kooku may xam naa ne moom ab donga la boo xam ne daa daa amul dara mën naa am lañ ko koy jox jombul moo ko jóo ci loola waaye loola dëglu or may Tuuba du or may foofa waaw loola ko ci ci kon moom it mat naa bàyyi ci xel lool maanaam ci ci ci dëkk beeg ndax jullit ñi moom jaatu na waaye ci ci noonu almisriyel jinsiya maanaam nga nga xam ne góor jigéen am na fi de am na ci suñu réew yëpp am na ci suñu dëkk bii nga xamante ne loolu maa ngi koy seetlu ba ci école yi xam nga xam nga tubaab yi dañ ne léegi tur troisième sexe lañ wax am na léegi mooy sexe x koo xam ne x la du góor du du jigéen seetlu naa ci ci colu gone yi gone yi seen dàll yi ñu sol tubaab yi liggéey nañ pesiwaal ay ay carax yoo xam ne góor ak jigéen mën nañ ko sol lu ma lu ma ta ba xel la gis naa ko man ci école yi xale yi dara li ñu koy wax ne ne dëgg de dal woo xam ne góor mën na ko sol jigéen mën na na ko sol ko kon léegi troisième sexe la x la kon x la waaw loolu kon dana dana dugal ci ci noonu ak jigéene te te te te dañoo war a góore ñee jigéene waaye ci waaye tubaab bi jigéen bëgg a du du du ci noonu ak jigéene loolu ko kon moom maanaam léegi ci léegi mat naa bàyyi xel suñ ma ma ma loo ñoo koy def comme ñu koy def waaye war nañ ci xool di di xool gu xale yu góor yi daal la ñu sol man man nag man en tant que koo xam ne dañ lay laaj da ngaa war a wax ci diine man lépp lay xool lépp lay xool man. man damay observé di xool waaw dàll yi tey tayyeelu maa xool dàll yi tànk nit ñi te waaw man loo man am naa jotam di xool tànk tànk nit ñi ba xam lu ñu sol man na ko de man na ko waaw bas na maa bas na maa taxaw fii ci garaasu Dakar bu njëkk bii taxaw jénn jigéen ma nga sol ma nga sol mbubb moo xam ne dafa gàtt sër ba weex tàll lam jiital tubay jëm gisal xonq cor xonq nga xam ne ne moom daa mel ne solul sulu maanaam sulu dara ma ma taxaw ma xam ne su ma mel ne su moom daal taxaw loo na ma ma taxaw ab ab kaat-kaat ñëw ab kaat-kaat ñëw taxaw fi wetam am ponkal wàcc ca mu dugg ci biir ponkal mu yéeg ma ne ah maa di kon kii moom dañ ko fay yónni woon ngir su ko sunu jigéen ñi gisee ne maa jàpp ne mën naa ne maanaam ni que de lu ma ni que la ndax karkar ba lu tax bii karkar bi taxawee ponk la wàcc mu yéeg koo ka yéegat lu ko waral gis naa ci maanaam léegi ci ci ci wetu kër si soxna kësiñ daa marta bis jumaa ji ma taxaw ab ay tubaab bi jigéen ñëw fa wàcc ci oto bi maanaam léegi gidd ba góor la mu jël ab séer di woon du tubaab bi ma ne ah mbaa suñ jigéen ñi buñ ko buñ ko gisee du ñu yaakaar ne lii moom dëgg la xam nga xam nga observation boobu mën na ko de tubaab bi message yi muy lancé dafa yaatu te te gaaw gaaw na loolu de ndax léegi maanaam léegi jum ba ci jumaa ji diggante kër si seen am atta ak jumaa ji maanaam léegi góor di woon jigéen message la bu am solo de bu am solo waaw moom moom moom moom jàll na man maa ngi taxaw di xool ay ay jigéen gis nañ ko ñoom waaw jàll na moom jàll na loolu moom kilifa yi nag ñoom ñi ngi ci kër yi tëdd rek waaw waaye nag ah ba nga yàqu de loolu lu am solo la ndax ndax loolu diini la duggee naa saam di ñëw fii ah maanaam benn booba booba tabaski la ñu bëri ab dongab daara jéem a jigéen laal ko mu ne ko kii ma ma sori ma jigéen ñi ne ko ah soo soo soo bañee jigéen laal la da ngay dugg taxi ma ne ah xale bii di jéem a sañe sañeeloo bu dee dugg ci kaar yi léegi moom mu génn ci moom kaar yi kaar yi moom lu am maanaam kaar yi dansé la de kaar yi kaar yi moom dansé la moom dansé dëgg la moom moom moom ñi waaye nag ki ko xam mooy kii dugg ci ci kaar yi comme man man moom kaar yi ma ci dugg xam naa dëgg dëgg dansé bi li may yàq diine man danaa dugg ci kaar bi yor sama kurus bëgg a wér sës ak jigéen léeg-léeg moom ma ne waaw man ah te ma man kat li ko kon te ma bàyyi ba wàcc waaye ah li ginnaaw li may wax dégg gudd ah kon nag pexamu ci moom pexamu ci nga xam ne léegi yow condition yi ngay nekk yow da lay leer ne mënoo wedd yow te kat yaa ngi Tuubaa ni ko ni ko Ndakaaru de maa jë jëyi lay googu réer googu Tuubaa la de Tuubaa la Mbàkke sax bu dee moom sax moom mën naa tare Mbàkke waaw waaye Tuubaa la de Tuubaa la loolu kon lu am solo la jaayi léegi li gën a jege mooy loolu nga nga xamante ne moom yéeme na loolu maanaam misile jinsee googu danaa ci andi lu ma xam lool loo xam ne nu ñëpp xam nañ ko asiaq aada woon nañ ci suñ kër yi jigéen ñi di sangu di ànd ak seen moroomu jigéen toog ci ëtt bi soxna sa toog ci ëtt bi ñaari xale yu jigéen jàppoo paan ndox yóbbu ca ca wana wa sangu mu leer ko ne mu leer ko nañ ne ko ñaari jigéen ña ña nga ca wana wa génn di ree soxna si xam ne xel la ñaari ñii ñooroon sangu ak siaaq siaaq ba aada la de aada la joo xam ne ci ci noonu kilifa yi war nañ koo xam ba tere ko jigéen ak jigéen ah jigéen bi bànneexoo ci moroomum jigéenam am na ci suñ kër yi waaw loolu kon moom it lu mat a bàyyi xel la mi ngi mi ngi dox loo xamante ne araam ji ëpp na moom xam naa ne ne moom sëriñ si buñ ko xamee jumbul danañ ci danañ ci wax dara am na aada ju ma gis moom it ju yaatu ci noonu xam ne jaay léegi maanaam léegi képp koo xam ne da ngay muuru doo julli ci waxtu ndax sëriñ si xam nañ ko waay tusbaar onze heures ngay julli da nga koy jiital tusbaar maanaam balaa waxtu wee jot maa ñoom dañoo araamal ci ci ñoom ngay julli ci ci waxtu sëñ ilimaan ah yaakaar naa yéen war ngeen ci ci ci xot ba de maanaam jigéen ñi bu ñu muuroo jullituñ jullituñ aada la joo xam ne aada la ju yàgg aada yi africain la ju yàgg ci noonu xaw ma lu ko andi loolu kon moom kilifa yi ñoom war nañ ci ci wax maanaam man mag sëñ Fallu Jaay mi dem nañ daaru yaakaar yaakaar naa tey doon doon jaale ci kenn si seen soxna bañ demee wax naa ko soxna si ah mbaa yaa ngi julli ci ci waxtu fat na ko kon kilifa yi bu ndee jaale fenn war nañoo laaj soxna ne ko julli kat ci waxtu lañ koy def loolu loolu loolu kilifa yi war nañ ko wax waaw loolu loolu am na yaatu na lool waaw maanaam am na ci jaayi léegi lu am solo loo xam ne seetlu naa ko mooy bu baax a baax damay toog ci kër jigéen ñi di waxtaan dañu la di di waxtaan léegi man ma def pexe ma dem ca war a wa xool ndox ma jeex xam ne ndox mi jeex na ndox ndox ndox néewtu bi ma ñëw toogaat di xool ba xam jigéen ñi bu ñu waxtaanee ba nga xam ne saf nañ saw ba ba mënatuñ koo muñ kenn tëb daw dem ci coono wa bu demee génn ma xam ne kon moom si wut si wut de xam nga xam nga suñ bi masuwul adda yuusu laa yadxul xulul janna mooy koo xam ne lay xew kër këram ci xamu ko jigéen ñi du ñu siiw loolu loolu te tegat ku dul siiw doo julli te ku dul julli moom yow da ngaa dem sawar waaw loolu kilifa yi war nañ koo bàyyi xel ndax loolu ak jaahili la maanaam réer gi gu metti gi jigéen du siiw ah waaye nag góor ñi seen bokk de góor ñi ñoom it duñ siiwu maanaam maanaam maanaam suñu aada la suñu suturaale su su suñu mag ñu baax ñi dañ daa yor seen bidon bu bu ndaw ngir fu leen aajo dabee ñoo ñu mën a jëfandikoo loola noonu nag góor ñu du du du siiwu am na nag foofu benn masala boo xam ne yéen fuqahaa yi laa koy laaj damaa xool gis ne kat kuy sol ci pantalon pantalon ku koy sol maanaam yow soo soo sukkee soo copporale saw soo jógee saw ma turwaat maanaam góor ni ko yàlla bindee ab tiwo la raakol la raakol bi saa bu sukkee saw bu jógee ndox ma day wàccaat waaw kon kon kon moom góor googu sol pantalon kon moom dafa taxaw saw kon xanaa góor gi bu taxawul saw du mën a seetlu loolu fuqaa yi xamul loolu maanaam maanaam alxukumaal si far farqun min tasawur yi doo atte rek da ngay xam li atte lu mu doon ma tib bi yan ni yàlla bindee góor ab raakol la raakol bi nag léegi saa boo sukkee day lemu raakol bi bi lemu soo soo yaakaar ne saw mi jeex na jeexut de soo jógee day wàccaat waaw kon yéen kon kon kooku dafa war a taxaw saw wala ah su doogee saw de moom maanaam amul amul ab jàpp julli gi julli ga baaxul loolu loolu kon mën naa baxel ndax it taxaw di saw ñaan baaxul loolu moom aada képp la xam nga loolu moom du diine nag du diine moom du diine ta- ta- taxaw di saw saw dafa dafa bon kooku moom du diine kooku moom aada képp la aada nag bokkut ak diine loolu loolu lu kon mën naa ba ba baxel loolu bokk na ci ca nifaq al itmaa yi ji am ci sun biir noonu nga xamante ne nun kat maanaam ñëpp ci noonu jàngkat bi sax bu dee gëm gëm na sëñ Tuubaa mën naa am sax gëmu ko waaw mën naa gëmu ko de dafa am intérêt ci gëm ko sëñ bi sant Mbàkke bu dee gëm na sëñ Tuubaa mën naa am sax gëmu ko dafa am intérêt ci gëm ko waaye ñi nga xam ne xamul dara moom maa ne ne fële moom di di andi ay dërëm moom di rang sëñ bi kooka gëm sëñ Tuubaa borom dërëm yi yi rang sëñ bi di woo siyaare kooka moom moo gëm sëñ Tuubaa waaye sëñ beeg wa ak borom xam bi ñëpp mën naa gëmuñu sax dara loolu nifaaq la nifaaq la de bu bu rëy te nifaaq nag li muy rëy mooy soo dee al ko noonu ñu ngi dund waaye dañuy dee de dañuy dee moom loolu moom loolu leer na moom bari na ko koo xaman fii nikkatu bi moom dañuy dee kuy dee nag moom war war ngaa seet lu wér gën a ja naa fekk moom sawar a jëm sawar a waaw loolu loolu moom kon war war nañ cee bàyyi xel am na leneen loo xam ne ñu ngi cee jëm phénomène yi nga xam ne am na ab jigéen ju ñu seexal ak nangam ak yëpp di am fu ñu jëm mooy ilhaad weddi yàlla xam nga lu lu lu ko waral tubaab yi dañoo muus dañoo bëgg a ci xamal nañu leen leen nekk du dëgg du du dara ndax léegi jàngatu tubaab bu xamul diine naka lay jiite jiite mbooloo mënut a nekk kooku mënut a nekk soo ko nangoo mu ne est ce que nangoo baax na ñu dox tuuti mooy la léegi naa seexal jigéen jigéen joo xam ne jàngatu tubaab la xamul dara muy wax ay konir képp ñu gëm ko mu ne waaw kon nag yéen seen mag ña ak ñii benn lañ lu mat a maanaam maanaam kilifa yi dañoo war a am ay conseil ci technique yu yoo xam ne seen seen xam-xam da yaatu seen seen kër ci yaatu su amoon da dana baax lool waaye xam naa kon waxtu wi kon mi ngi xocc kon kon kon maa ngi jégalu nag lu ci xat ak lu ci ñagas asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh